Euh, mais euh, grand la quand même balaa ñu ñëw ci moom dañuy ànd ak yow ci xale bu am jom. nga seeti woon xale bu dóor katuwaar. waaw dóor euro. à euro di ñam. exactement di ñam euro comme ni nga koy waxee rek en tout cas maa ngi demoon seeti benn xale bu am jom comme ni ko Aba waxee koo xamante ne c'est fils euh, de la banlieue ñu koy wax Moustapha. Aba di ko woowee Amdi donc moom laa demoon seeti mu yëngu ci li nga xamante ni mooy passion am alors on va aller découvrir ça ñu ñëwaat léegi. guerrier dëgg. asalaamaaleykum <laughs> chers amis téléspectateurs alors tey nag seen rubrique je suis partie de zéro tey dama ñëw fi nga xamante ni mooy ñaari tali à la découverte d'une personne boo xamante ne ci ay dàll lay yëngu mais je vais pas vous en dire un peu plus dañuy daal di dugg ci biir ma wax leen ci lan lay yëngu ayca. Amdi naka la def ba am idée taxawal li nga xamante mooy ay boutique wala yow nan nga nan nga def ba ñemee woo fet loolu laa bëgg nga waxtaan ak euh, lay seetaan. loolu góorgóorlu la rek ñëwee rek. affaire moom yombul quoi mais soo góorgóorloo rek yàlla mën na la dimbali quoi. waaru am di laa bëgg nga nettali ma ko ak jaar-jaar bi su ma nee nekk. <laughs> non am di nag moom am di am di am di am di daal benn jeune la bu juddoo si banlieue bi yoroo si banlieue bi di di yëmbal caaro yi léegi bi demee nag boo xamante ni jàng bi demee na ni mu suñ benn tonto bu ñu nekkaloon fii quoi Colobane yii hmm? la doon jàng quoi affaire yooyu lépp moom la quoi moom moo taxawaloon lépp mais. après yàlla dafa dugal mu jóge fi quoi mais avant mu fi jógee daf ma woo ne ma kaay liggéey gis na ma mooy jënd di jaay dugg dugg génn avant rek man moom damaa yàgg a sob si loolu ay jënd jaay moom dafa mos nekk samay affaire quoi. dama bëgg nga wax ma euh, ci métier bi lan nga ci dund lu gën a métti. non métier bi nag moom wax dëgg yàlla yombul quoi waaw surtout milieu bi ñu nekk ñun Colobane nga xamante nii lu ne ngay gis quoi des fois nga gis ay nit ñoo xamante nii yéenay nekk mais duñ la yéene. duñ bëgg nga avancé bu ñu gisee ngay avancé sax ñoom dañuy xaw a mer quoi si benn côté. am na pas mal de célébrité ku ci mel ne Abano Stress mi nga xamante ni moom secret am yëpp euh, la euh, lan mooy secret Amdy ba euh, yenn célébrité yi ñemee ñëw ci Amdy Chose. loolu moom boo ko gisee xam naa ne mun naa ne lépp Aba la quoi Abano Stress parce que moom moom ba darul dara moom la woon quoi maa ngi moom dafa yàgg quoi du tey. mën naa ne amdi bi sax moom moo ko génne man Moustapha laa tudd mais amdi bi moom moo waral ñu naan amdi amdi amdi amdi dama bëgg xam ndax di ay dàllu góor rek lay jaay wala day jaay dàllu ñëpp non fii am na lépp dàllu góor dàllu jigéen lépp am na fi basket eh, et force lépp am na fi waaw am nañ dàllu daal lu mag daal lu jigéen lu góor lépp am na fi Euh, kii di am di Thiouz laa ñëwoon seet si fii di ñaari tali alors dañuy joxante rendez-vous ci beneen. sam seeti nga sama xarit. Euh, waaw nga chéri Kenza. xale bu baax koo xam ni 2009 la ñu ànd man ak moom. ndeysaan mi ngi koy wax sax euh, boo seetloo ci interview bi maa ngi naan ko yaa ngi faral di solo ñi nga xamante ne ñooy ay célébrité ku ci mel ne Aba No Stress lan mooy sa secret mu ne ma Aba No Stress moo indi Amdy Thiouz bi mais moom Moustapha la tudd. Mm-hmm. nee na da ngeen a jaar fu bare bare donc en tout cas man ça dem découvrir. dem di rangu fii. déedéet di duggaat bi waa ko jaayaat wax na wax na ko mës naa jaay nit benn pat daal mu jël ko kooku maa ngi koy baalu xawma fu mu ne ma ah. xaar ma dem jëli beneen pat bi mooy xaar ma ñibbi ilaahi ba tey joxoo ko ba tey <laughs> mooy di leen wan ni que euh, dara xëyul sotti comme on a l'habitude de am di nekk jàmbaar wax leen jaar-jaaram wax leen ni que c'était pas difficile au début alors mu c'était pas facile au début Aba c'était pas facile mu dem ci ki nga xamante ne mooy tonton wam mu vraiment jox ko ay dàll jox ko muy rangu nànk-nànk ba yegsi ci li nga xamante ni tey dafa ibbi li nga xamante ni mooy ay boutique euh, fu ci mel ni Colobane wala fi nga xamante ni mooy ñaari tali mm-hmm. donc Amdy c'est un jeune entrepreneur yoo xamante ni yéen ñi toog seen kër pourquoi pas ngeen def comme Amdy euh, man je pense que loolu benn initiative boo xamante ne lu nice la et que ku mu mënti doon Aba jaaykatu caaf bi ku mu mënti tamit mu nekk une personne vraiment respectueuse man bi ma ko gisee je me suis pas dit que kii je me suis dit xanaa du kii mooy am di tellement dafa yaru mm-hmm. correct am éducation vraiment may wax ak moom téléphone tout ça muy coordonné lépp nice donc euh, am di nekk benn jeune citoyen boo xamante ne il est à féliciter vraiment ndax li muy def ni projet bu nice la et que ñëpp a gis seen bopp ku ci mel ni abano stress fa lay solo ñeneen ak ñeneen fa lay solo te àdduna bi. avant délégation lañ defoon dem fa de. bu mm, ngeen dem da leen jox ay mbuus ngeen ah, ah, yooyu parce que yooyu. moom ma ko may noonu. et euh, comme ni nga ko waxee tout à l'heure il est parti de rien euh, ba tey fi mu yegg si et jël ay moroomu ay jeunes am ñu koy liggéey loolu je pense que chose à à et je pense que jeune bu nekk war nga jël ay références yu ñu mel ni ñoom parce que booy wax xëy na dàll à l'époque dañu koy yombaloon trop da ngay dem mhm. Colobane wala dem Sandaga jënd benn dem mais maintenant mu def ko d'une manière boo xam ne

mu ngi suñu kaw ah donc nan ñu bàyyi ci dàllu vingt cinq mille ak cinquante mille yi nga xam ni qualité bu baax lay nekk ñu mën koo sol problème bi du problème ay dàll problème suuf si la